leneen coowalum vidéo bi nga xamante ne rek fi ñu toll nii si à la une te ko kenn nag kenn waralu ko ku dul Adji Sarr nag la ñu daal di livré ab benn boîte maquillage boo xam ni suite beauté lañ ci def ah, bañ ko livré maquillage bi nag mu ni moom da ko war a sànni wala da ko war a téye parce que sax xaalisam la ah, demaat bay waxaat ni lii lu ma dal moom moo ma ko yóbbee ah, moom Adji Sarr moom prononcé yeeg ay oh my god ba ma déggee Adji sa daman kii est ce bi nga xamante ni la moo ni ñoo ni woon la Adji Sarr mi nga xamante ni ñoo ni woon jàngul wala Adji Sarr mi nga xamante ni nee nañu woon xale la la dama déggee vidéo bu ma gisee vidéo yi démb mm-hmm. vraiment euh, mu xayri am na am na lu mu def ci man quand même. Euh, je pense que Ndeye Assou képp mm-hmm. kuy jigéen nit war naa am lu mu def ci yow. Mm-hmm. ndax euh, déjà jeune ne parle pas d' yi nga xam ne tey jii moom dafa jàppoon ne dañ ko tooñ. Euh, victimisé wu lu ko dal Sweet Beauté moo ko ko yóbbee. ko livré foofu euh, tey ji bu nee Sweet Beauté moo ko ko yóbbee. Mhm. déjà tudd na ci Ndeye Khady Ndiaye. Mhm. ndax euh, Ndeye Khady Ndiaye moo nekkoon patron bu Sweet Beauté. Mhm. léegi nag Adji Sarr moom c'est comme si que ne. daa dellu si waat du ma ne sax dellu si waat ndax nekk ko fi. daa nekk fa mu nekk. di di xokkatal sénégalais yi. di mel ni comme si ne daal da leen di ñaawal. te gis nga Adji Sarr. waaw amul kersa. Adji Sarr amul kersa. amul kersa. Hmm. Adji Sarr Adji Sarr manqué na humanisme. Hmm. ndax xam nga yebaate weesuwul. Hmm. nga jur fi coow du ne weng déjà lu fekk moom mu nangu woon ñu utiliser ko sur un fait boo xam ne da ngay accuser nit te bu fekkoon li nga koy accuser sax dëgg laa la rigueur. mais li ñu koy accuser ñu boole la ci benn ngay jigéen. ñu fay la xaalis muy ñaar. ñu lay dégg ci yenn yi mu ñett. et une famille. am nga ndey am nga baay am nga ay mboq Mhm. léegi yow tout le temps bu saa yoo xëyee ñuy saaga sa ndey saa yoo xëyee ñuy saaga sa baay saa yoo xëyee ñuy saaga lépp lu tax ci yow loolu rek añ saar mhm. mhm. waroon naa mën a tax malgré li mu fi def yëpp ba mu demee ba rëcc mën naan du mën ne sax rëcc mais ba mu demee ba génn réew mi tey jii am na leneen loo xam ne tey waroon na fa taxawee maanaam continuer dans le lancé où moo nekk ne maanaam dëggal gi mu wax ne dañ koo tooñ mais tey ji bu fekkee ne yoon dem na ba def euh, liggéeyam hmm. ñu ne carrément Adji Sarr li mu doon toppee Ousmane Sonko dara amu ci hmm. léegi tey ji ñu xëy un bon mu hmm. xëy di génne mais étude beauté ba mu fay dem liggéeyee kenn forcé wu ko ko coup bi bi mu ciy dugg ñu ko koy forcer kenn kenn neexalu kenn jox ko lem. Mhm. léegi nag bu fekkee ne yow en tant que jigéen alalu àdduna daf la jaral yéen day day yëgluwaat day day yëgluwaat. mooy mooy li may wax maanaam day ñaawal sénégalais yi ndax xam nga ah. ñaawalaate weesuwul. Uh-huh. déjà benn génne li gamme peut-être gamme de maquillage bi nga xam ne tey jii. étude uh-huh. beauté entreprise jàmbur la. Uh-huh. gis nga euh, euh, diggante bi nga xam ne. ñoom ñaar. Euh, jot naa am seen diggante ñoom ñaar. waaw maanaam réeroo daal am na. juboo amatu ci kon donc. amatul woon benn droit di utiliser gàmmu jàmbur di ko ci dudd naan mm-hmm. mais na ko sànni problème kan lay doon déedéet nee na xaalisam lay sànni waaw léegi kon ñun après lu ci suñu yoon mm-hmm. ñun lan lan moo ci yoonu sénégalais yi mm-hmm. Adji Sarr franchement waaw euh, bu mu jàpp ne dafa rëcc bu mu jàpp ne dafa rëcc bu mu jàpp ne dafa rëcc bu mu jàpp ne dafa te eh, wallaahi nee leen yàlla tey jii buy àtte. du xaar bés penc da koy di bëccëgu dara kaam en plein jour ñëpp di gis te eh, na gën a bàyyi xel ne jigéen la. Mm-hmm. ndax déjà day day yàq na deram ba pare. Mm-hmm. mais day yàq deru jigéen ñi nga xam ne tey jii ñun ñooy parce que euh, comment dire eh, l'autre la femme là dama koy fàtte. kan kan la kooku moom moo fi doon défendre Adji Sarr toog ci ay plateau télé. Mhm. Euh, di défendre Adji Sarr. en François Hélène wala. Euh, Gabriel. waaw euh, donc je pense ah, que Gabriel. Gabriel kan. Mhm. donc je pense que loolu yëpp mu nekk des choses yoo xam ne tey jii tuutal tuutal na. Mhm. jigéen ñi am na benn pressentiment tey jii boo ko gisee dañ naan jigéen ñoom ñëpp a yem alal àdduna dana leen jaral lu ne. xam nga dégg nga ko fi du benn yoon du ñaari yoon alors que ñun ñun jigéen ñun ñëpp. nun ne pouvons pas nous ne pouvons pas être ndax ñëpp yemuñu kenn ku ci nekk nag li nga xam ne ce choix la moom nga bëgg a def am nga droit pleinement def ko mais Adji Sarr cas exception à la règle Adji Sarr moo moo fi créé Sénégal goo xam ne kenn su koo xam. Mhm. Sénégal goo xam ne da ngay xëy suba mu ngoon jot ci na ngay dëkk. Mhm. ci fitna ngay yendu ci na ngay fanaan ci fitna ngay yeewoo. Mhm. léegi tey jii mu toog ba mu neex en plus waxul ci dara. déedéet moom ci boîte maquillage bi rek la wax tonton ma jox hmm? xalil ay ci xalil hmm. nga gis vidéo bi nga xamante ne mi ngi circulé depuis démb euh, Adji Sarr euh, daal di génnaat euh, gannaaw ba mu toogee lu yàgg ab diir gisuñu ko ñi naan génn na réew mi ñi naan génnul réew mi ñi naan ma nga ci fay ca Canada démb mu def vidéo boo xamante ni dañ ko livré ab benn boîte maquillage boo xam ni Sweet Beauté lañ ci def bañ ci defee Sweet Beauté moom nag nee na daa war a sànni maquillage bi wala parce que Sweet Beauté lu ko dal tey moom moo ko ko yóbbee daa bëggoon am na ko moom Adji Sarr. waaw. Mhm. parce que ba dafa bëggoon ñu xëy wax ci moom. Hmm. comme ni ñu ko defee. Mhm. comme ni ko ñeneen defee ak ñeneen ak ñeneen loolu kese. la ci jublu jubluwaat jàppoon it dafa bëgg ñu xool fan la sénégalais yi toll ci dossier am euh, fan la nit ñi toll ci Adji Sarr ak dossier Adji Sarr boobee nga xamante ni yëkkati woon nañ ko fi ba daal di ko tëj ndax daañ ko yëkkati waatam déet jàppawu it ci côté boobu euh, def ci natt. nattul dara. lu tax nga jàpp nii rek loolu la bëggoon objectif am lii la woon objectif am lii la woon pour ñu xëy wax ci moom kese moom la ci jublu woon te yaakaar naa réussir na ko moom moo la gën a xam ne li fi jot a xew te jàll à chaque fois mu ñu fee toog te waxuñu dañoo war a rendre justice à ñan les quatre-vingt-six personnes yi nga xamante ne dañoo daal di dee ci li ci li xewoon entre deux mille vingt et un ba deux mille vingt-quatre mosuñu fee toog ba waxuñu ne nañ def justice ci ñu ñàkk seen liggéey ñi takk seen i cër ca mënatuñoo def leneen ak leneen li ko war a lépp moom la donc loole ba mënuñu ma xool démb rek ñu ngi ci mujjee wax ne bëggaan sax taxaw ne ne nañu leeralal ñi nga xamante ne dañoo daal di faatu ci ay manifestations fi xewoon te lii moo ko waraloon moom nag moo gën a xam ne lii mënuñu fee nekk ba jóge fi te lijjantewuñu ko ba mu leer nañ ñu tegaat ko fi ñu ko war a teg et je pense que tey jii nii loolu moom la ko gën a xam moo ko gën a xam keneen ak keneen ak keneen mais le fait que ngay génne di naan ay lii moom ma yóbbee nii wala lii la ak lee la ak yëpp pour que ne nit ñi nañu waxaat ci yow peut-être nga feeñaat ñu naan mu ngi ci jàmm ak ay ci lii la nekk ak genre yooyu yëpp et je pense que na fa nekk na fa toogagum en attendant na fa yëglu ne maa ngi ci lii na xam ne bés dana ñëw te ala kulli haal bés dana ñëw loolu moom kenn naatable wu ko ne par force day feeñ. te li tax peut-être am na loo xamante ne mooy waruñ koo ko may mooy que le fait ñun ñuy wax ci moom parfois di ci génn bu ñu ko bàyyi woon bu defee dara. daañu wax ci moom nag Khalil ndax ci euh, plateau la ñu hmm. nekk te information peut boo xamante ni gis nañu vidéo yi depuis des moom mu ngi viral donc daañu wax ci moom. Hmm. Hmm. je ne parle pas ci plateau lañ nekk. peut-être yow yaa ma comprendre li ma wax. bu fekkente ne saa yu génnee Sénégalais yépp ñoo ciy àndandoo di ci wax. et je pense que damay naan mu ngay téye fa muy téye te dafay mel ni que li muy def moo ñu neex mais mënumaa jàpp ne kii def maa def lu ma naqari ba pare di génn di wone ne maa ngi ci jàmm ba pare te saa yu ko defee ñun Sénégal gépp ñoo ci anano di ci waxaat ci moom ni mu ngi ci jàmm mu ngi ci ni innocent la wala innocent la wala wala du lii man loolu laa wax ne dañ ko war a éviter parce que fi ñu war dem danañ fa dem te moom mënuñu ko war a tere mënuñoo war invité wala ñu forcer ñu ci lii la ñu war a mën a wax yow jigéen nga référence nga kii référence la man sama yaay dama ko bëgg keneen bëgg yaayam ñu jàpp ne xëy na peut-être ci société bi ci penc bi fi ñu nekk jigéen kese moo ko war a mën a defar parce que jigéen moo yàq jigéen moo indi lii waaye jigéen moo taxawoon dëggalaat boppam te te euh, def ba li nga xamante ne peut-être liñ ci jubloon amuñu ko mais est-ce que kookee nga xamante ne tey jii amoon na ci taxawaay ba nga xamante ne li ci waroon yëpp ñu waroon ko di waxtaanee ndax ñu ngi koy def ci moom sax bariwul te kooku parfois li muy génn ci ay sorties ci ay kii euh, am na fi. moom nag bu fekkente ne lii moo ko ñor ci lii lay nekk pour bëgg a yëglu ne maa ngi ci jàmm wala bëgg a yëglu ne fan lañu toll ci moom. jàppoon yi di dossier boobu nañ ko àttee. non ko neexul moo tax peut-être muy wax ni. lépp lu ko dal loolu moo ko ko yóbbee muy suite ba te boobu. parce que hmm. mënoo cee tiiree loolu. dossier bi ko àttee du ko neex parce que lañ ca ko waxoon defuñu ko. kon nag nañ ko atteel lu ko neex parce que lañ ko doon gëmloo amu ca lañ ko doon defloo amul nañ ko jugé dañ lañ ko ko waxoon amul parce que xamoon nañ ne lii ay caaxaan képp la te dañ ci génn moom nag moom moo choisiroon def loolu ak lépp lu ko ci mënta fekk bu fekkente ne liñ ko jugé ak liñ ko defal àndu ci bëgg ko lu ko tee toog Sénégal def appel am ne liñ ma jugé man bëgg ma nañ ko jugé waat lan mooy daw li lan mooy laqatu yeeg ay yeneen ak yeneen du am na ñi ko doon jàppale ana ñooñu tey lan moo tax ñu bàyyi lan moo tax ay ñeneen ak ñeneen ñu xam ne kenn bëggatul toog ci plateau sax tuddu turam kenn nangootul doon yaayam kenn nangootul doon nijaayam kenn nangootul doon ko xamante ne yow yaa ko doon défendre ci ay plateau ñëpp bàyyi ko moom kese mu nekk ca léegi buy génnaat di yëglu ndax man maa ngi fii wala fa leen ci toll hmm. dañu ko xamal ne fañ te toll woon bu yokkuwut wàññeekuwut benn yoon hmm. te daanu leeral lépp li ci wanti war a leer dinañu ko leeral en commençant par ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko dugal ci guute gi hmm. man nag bu fekkente ne ci moom moom la engagé bu ko neexee muy génn bu ko neexee muy def ay live bu ko neexee mu def lu ko neex mais nag am na loo xamante ne moom xam na bu baax ni am na li koy xaar bu ko xaarewul fii na ko xaaree feneen te bu yaakaaree ni dana dina dana dana yomb dana neex. Hmm. wallaahi day nat boppam. dina métti dina yàgg. parce que yéen yi boo ko defee. Hmm. yàlla sax bëggu laa yàkkamti da lay bàyyi rek ci penc bi nga continuer dundu hmm. waaye na xam ne moom li mu nekk nii. dugg ci histoire tristement bii bi kese kese kese dafa doy parce boo boo tuddee turam rek même bu fekkente ne moom la tur bi kese kese kese boo ko tuddee sans renvoie quelque chose xel yi day demaat ci leneen ak leneen yow boo demee ba réussir loolu ci penc. Mhm. ñu la cay tuddee lañ lay tuddee ngay tuumaal as gor. Mhm. lan lañ lay tu lan lañ lay tuddee parce que yow yaa indi fi lii ba ay nit dee ci. Mhm. lan lañ lay tuddee parce que yaa indi fii pour lan faagaagal ab prisonnier ab ab ab ab leader politique. ndax nit ñoo la inspiré ndax xaalis ndax ñàkkub yar ndax ñàkkub vision ak leneen ak leneen ñu la ciy tudd kese pour loolu man dama doon wax la ma doon wax rek ku ko taxawoon di ko défendre na nga ñaan jur doom ju mel ni moom ku nangu ne lam doon def yoon la na nga ñaan am doom bi mel ni moom waaye moom ak ñi mu àndaloon di def jëf ji bon ji. Hmm. yaakaar naa ne fu mu mën ci nekk moom xelam dalul te day jéem a wane wu ne xelam dal na waaye xelal lanu parce que bu xelam dal te yenn yi mënoo koo def sax am conscience tranquille kon nag na def lu ko neex na asu ne génn. na hmm. wax ci suite boo tee na def lu ko neex mais nag. Hmm. leptoo faytoo. leptoo faytoo tontu tey ba nga gisee et pourquoi. je passe et pourquoi je veux savoir. non je passe. pourquoi. s'il vous plaît je passe. <laughs> mënul wax baax li nga bëgg a wax kay. mooy nag sama idée. loolu kay mënut a nekk tontu Fall. feeg Macky Sall waxatu ci léegi. Hmm. ak Marème Faye ma ci wax. foog Macky Sall waxul ci. ak Marème ma ko du ci wax kii jërul ma wax xool ko sax sama fay mal du ci wax. <laughs> merci beaucoup xam nga ndeyasu <laughs> dafa am lu am ba des dafa am lu am ba des. Mm. je pense que Adji Sarr lu mu nekk fautif fautif. Mm. on a dit un coup bien préparé mu nekk ab complot maintenant Adji Sarr seul. et j'aimerais bien euh, tontu Fall wax ma ci vidéo bi nga xamante ne Adji Sarr def na ko di lii moo ko yóbbee suite beauté moo ko yóbbee li mu dund yëpp. moom moom lan la ci sous-entendre maanaam lan la ci dégg dégg boo xamante ne peut-être bu toogee euh, ñi nga xamante ne ñoo koy seetaan moom tontu Fall euh, di ko sopp di ko topp saa su nekk mu wax leen lan la dégg ci waxu aju saar boobu noonu amaana am na ci dégg-dégg bu kawee boo xamante ne ñoom amuñu ko ci c'était juste ça. yaa ngi woon daa aj garde gi moom. waaw yaa ngi woon fa am solo yéeg a dem. <laughs> donc euh, mhm. comme li may wax rek euh, tey jii Adji Sarr fautif la. Mhm. mais les personnes bi nga xam ne ñoo teg projet complot boobu. Mhm. ñoom lu ñuy jaay ñoo ñoo njaag ba moom ñoom ñoo gàddu di dem ak moom. te euh, tey jii Adji Sarr benn pion la. mais ki nga xam ne moo organisé plan. teg seen i deal appliqué à la règle nag. jàpp ne ñoom ñooñu ñëpp tey jii dara warul leen ci mën a fekk même si bu fekkee ne état bi fi nekkoon. Mhm. wala justice bi fi nekkoon daal dinay def liggéeyam ba ñu topp ba ñu àtte ne. Mhm. li ñu koy toppee yëpp dara nekku ci mais. Mhm. maître El Hadji Diouf dans tout Gabriel Kane dans Euh, ñi nga xam ne ñoo nekk ci gouvernement bi jox ko ay passeport jox ko passeport diplomatique ba mu génn réew mi. Mhm. dans tout ça. Mhm. mais ñooñu ñëpp ñooñu ñëpp avant ñuy lijjanti kaw Adji Sarr ñooñu lañ a njëkk a lijjanti seen cas. Mhm. kanta Adji nag moom xam nga euh, li Khalil wax. Euh, tu peux sembler être tranquille mais tu n'es pas tranquille à l'intérieur moom loolu moo ko dal. xam nga ne tey jii moom bu toogee ba xelam dem ci ngaamu étude boote bi nga xam ni fa la doon liggéeyee. kon en âme et conscience elle maanaam problème bi am Sénégal yëpp mënta génn ci xelam am na yenn yoo xam ne poids la. Mhm. am na yenn yoo xam ne poids la te xajul ci bopp doomu aadama. Adji Sarr nag euh, yàlla na ko yàlla mooy mujj gu rafet ndax gis nga àq baaxul. Mhm. àq ndey astu baaxul. Mhm. koo fi gis mu yor ay milliards xëy lépp na pëng laaj ko fan la jaar ak doomu aadama yi. Mhm. te Adji Sarr am na am am na benn sentiment boo xam ne tey jii def na ko ci ci xolu sénégalais yi am na ay sentiment yoo xam ne tay jii def na ko ci xolu yenn parent yi ndax ñi nga xam ne ñàkk dafa metti dafa metti kon loolee yëpp tey mu dëkk en retour. Mhm. ñoo génne benn gaamam. Mhm. c'est comme si que ne euh, je m'en benn je m'en lay woote lu mu préparé la exactement parce que je mais benn je lay woote au fait. Mhm. te nañ bàyyi lépp ci loxo yàlla yàlla dina def euh, dina def liggéeyam. nañu bàyyi lépp ci loxo yàlla yàlla dina def liggéeyam ca noonee la ki nga xamante ne rek mooy Abdou Mbow euh, di laaj ci ay